Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal ak 3MD énergie ñoo leen di may seen revue de presse jàngeen jëf gannaaw fitna gi ñu nemmeekoon ci ndar géej réew mi quotidien mu ngi ñu yëgal ni juróom-ñett fukk ak benn doomu aadama yi nga xamante ne police tegoon na leen loxo mujj nañ leen a dut ab mandat de dépôt ba noppi atte gi jàpp nañ ko ñaari fan ci weeru décembre bi ñu dëgmal loole xewoon ca Saint-Louis ñu bëri jam ci baaraamatuma tuuma Barthélémy Diaz moom tête de sàmm sa kàddu ci biir Vox Populi ŋàññi na taxawaayu nguur gi rawatina Ousmane Sonko ci boppam ndax dafa jàpp ni moom moo fas yéene sabote li nga xamante ne moom mooy seen njeexitalu campagne waaye moom maire bu ndakaaru gis ni tontu li gën li ñuy indil premier ministre mooy dibéer gi ndax ci mbañ gàcce yi lay doon Barthélémy Diaz fës tamit ci xët bu njëkk Walf Quotidien mu mel ni ku am yaakaar lool ci élection dimanche gi ndax doomu Jean Paul Diaz bi jàpp na ni gannaaw vote bi ci boppam ñoom ñooy inauguré li nga xamante ne moom mooy cohabitation ci Sénégal ba noppi mu yëgal président de la république ni bu yóbboo mu waajal tabb premier ministre bu bees bi nga xamante ne ci opposition bi lay jógee ndax moom li mu jàpp sax mooy Ousmane Sonko ci boppam dafa mel ni kuy xatal président Bassirou jamay fay jamono jooje moom Ousmane Sonko ci source a muy tontu Union européenne mi nga xamante ne génn nañu barki démb di wax ci accord de pêche bi nga xamante ne moom la ñu sekkoon ak Sénégal waaye njiital Pastef ci meeting bi mu doon amal ci Grand Yoff ma ngay leeral ni dogal bi ci nguuru Sénégal ci boppam la jógee ndax ñoo njëkk a yëgle ni accord yi nga xamante ne dina jeex ci dibeer gi noppewu ngir di koy yeesalaat ndax gisuñu ci ngëneelu Sénégal ci boppam jamono ji Sonko di tontu Union far ba ngoom di ko tontu it ca diwaanu Matam ci meeting bi nga xamante ne moom la fa doon amal moom député bi jege woon lool ki nga xamante ne moom mooy Macky Sall di weddi ci l'info yéenekaay tuuma yi nga xamante ne njiital Pastef ngaloon na ko ci ndoddom ba mu demee ca Agnam li mu gis mooy Matam ba léegi gox la bi nga xamante ne Macky Sall moo ko moom ci wàllub élection te loolee daañu ko firnde ci dimanche gi nga xamante ne moom la ñu jógee ci élection yi daal gouvernement d'union nationale la ñuy samp ci Sénégal laata ñuy xam liy tukkee ci élection yi le témoin yéenekaay mel ni kuy def ab xayma ci campagne électorale bi mu jàpp ni fitna gi fësoon na ci lool yéenekaay bi li mu gis ci doxalinu sàmm sa kàddu mooy campagne bi nga xamante ne dañ ci fësal lool tension jam ak njëriñ takkuwalu Sénégal Sénégal kese ñoom mu mel ni ci dal lañu tàmmooy def yëf yi gannaaw témoin le quotidien moom jàngat gi mu def ci campagne électorale bi candidat yi nañ ko ndax ci ñeen fukk ak benn liste yi nga xamante ne ñooy xëccëw yo fi kenn ci ñoom joxewal li nga xamante ne moom mooy contrat de législature am lu ñu ci nemmeeku nag mooy ay meeting caravane waaye tamit visite de proximité la tribune mel ni gisul loolu ndax nee na sàmm sa kàddu moom wax na ci wàllu koom ba fësal sax li nga xamante ne moom mooy mbébétam ngir relancer économie bi ci Sénégal nga xamante ne dafa nërmeelu jamono ji Sud Quotidien def tamit jàngat gannaaw campagne bi nga xamante ne tey ji lañ koy ndar képp gis na ci fitna ay xeetu dige yi nga xamante ne méngawul suñu naataango yu groupe Sud Communication bi di dikk ci enjeu yi nga xamante ne moom moo am ci élection anticipée yi ci boppam le mandat ne ko campagne bi ma ngay jeex ni ki tey ji li des nag mooy daj dëpp gi di béer gi sénégalais mën a tànn ana ñan ñoo leen di toogal ca pencum ndaw réew mi la soleil mel ni ku koy naan fi des na ndax bis bu tey ji mooy mujj te ñu ngay xaar ci candidat yi ñu yey nopp askan wi ci li waral ñu war leen a mën a voteel ana kan la war a mën a voteel mu mel ni tar na lool waaye L'As Quotidien li mu gis mooy gannaaw boob ak léegi giseguñu ana kan ci opposition bi moo mën a taxaw tembe ngir defante ak Sonko mu mel ni léegi Barthélémy Dias jël na xeex bi ci wàllu boppam xeex bi am diggante Tahirou Sarr ak Sonko réew mi quotidien di ci àddu yéene kaay groupe réew mi network bi di fësal kàddu yi nga xamante ne candidat bu coalition jël li ñu moom mel na ni kuy tontu njiital Pastef ndax nee na lu jëm ci carte de séjour moom bokkul ci projet Pastef coowal nationalisme ak patriotisme journalisme enquête xëy ci tey tamit wax ni débat bi tàng na jib diggante Ousmane Sonko ak Tahirou saar ñuy wax ci wàllu identité nationale Sonko mel ni ku ànd ci ouverture di ŋàññ discours yi nga xamante ne dafa mel ni ñuy tuutal immigré yi ci Sénégal ci yéenekaay bi moom Tahirou Sarr ma ngay sàkku ab débat digganteem ak Ousmane Sonko ci wàllu wi ci wàllu malversation yu ñu njort ci société général bu Sénégal libération di ñu yëgal tey ji ni am na juróom benn inculpation yi nga xamante ne am na ci bancaire yenn ci ay fonds yi nga xamante ne Amadou Diko nekk ak Esperbank moom moo ko détourné foofu la ñu ko dugal Sénégal dugal benn but démb digganteem ak Burkina Faso Rewmi Sport di ñu xamal ni sunu gàndey jël nañu ndam li ba noppi nangu première place bi ci kanamu Burkina ni ki démb ci jongante bi ñu doon amal ca diwaanu Bamako record mi wax tamit ci jongante boobe di xam ne ni Habib jara mooy ki këpp yelwaanu étalon yi ni ki démb tax na nag ba jamono ji gaynde yu Sénégal ñoom ñoo toog ci bopp classement groupe bi